ko xam projet mhm. Pastef seen mhm. euh, te nga xam ñun liñ doon incarné mhm. war nga war a mën a xam ne dina jeex dina metti nag dina metti dina tar mais boo gëmee li nga doon rek li nga xam ne suñ borom da koy jeexal incha allah man lool laa gëmoon da nga gëmoon ni dina dina jeex euh, mais mais ci dañu taxaw ci biir xeex bi ba léegi amoo si ay ay nit wala nit yu la jege yoo xam ne da ngeen doon faral di ànd sur le terrain te gisatoo leen te ci xeex bi lañu daanoo quoi waaw loolu moom bëri na ci moom am nañ si ñoo ah. xam ne ñoo doon ànd. Mhm. des fois su programme amee ñoo leen njëkk a woo des fois nga woo leen Ibrahima Jeeju mel ne mi ñu jàppoon te mhm. doom gaañ ci ginnaaw mhm. ñu ñoo doon fanaan na noo kër pros. démb rek maa ngi koy am ku ma koy laajte. que depuis mu génn kaso gisuma ko. ñu ne ma mu ngi Ziguinchor kooku ñoo doon ànd dem kër pro. bu amee projet de war a wuy ji fa lañ daan nekk fanaan fa. bu ñu xëyee sël mu ndékki rek daw teg ci terrain bi. àndaat ak pro ñibbi si këram. doog a ñibbi suñu kër. dama daan gis koo xam ne yéen daan ànd di def di xeex. nga jékkee-jékki ñooy la ah diw nañ ko bal ñu mu ngi noonu ñu yóbbu hôpital mhm. balaa sa minutes ñooy la suñu borom jël na ko ah dangay xam ne mhm. euh, jàmbaar moom su mhm. daanoo ci xare rek noonu rek la moo doon demee doy na doy na euh, mais noonu j'imagine que bi Sonko Ousmane Sonko ak Bassirou wala bi Bassirou Diomaye Faye faloo sa xel du ñàkk dem na si ñooma ah. waaw ñun nag ah, euh, tous les jours suñu xel mu ngi nekk ci ñoom. boo gisee mhm. suñu publication yi sax. Mhm. dañ leen di publier des fois di leen rendre hommage. parce que ci mhm. mel ni mun naa mu ma daan àndal. Euh, ci rak ramogène yi moo ko def infection. ba suñu borom jël ko ci. te dafa nekk xeex boo xam ne. dañ doon xeex ngir changement. di xeex pour jotaat suñu démocratie parce que démocratie bi dem na ba. sooxe. Euh, kon loolu moom mënul ñàkk ñu leen di fàttaliku saa mm-hmm. su ne te nday mm-hmm. mbili gi nga xam ne ñoo bokkandoo woon xeex yi muy Ousmane Sonko mm-hmm. aussi chaque jour xelam mu ngi dem ci way dawlu yooyu parce que tey bu xeex bi egsee ba fii ñoom am nañ ci part de responsabilité parce que su bakkan waddul woon nit ñi duñu gën a am xeña motif bi gën a wàkkilu ne àddina dund ak dee moo fi nekk te mbir day am fu muy toll dañ naan ku dund doo gor ñun moment yooyu lañ tolloon ci xeex bi yow ndax yaa ngi doon sóor wala parfois booy génn sa yaa ni la ah mais defal attention wala yow nga naan ah maa ngi dem mais wóorul ma ñëw euh, ndax yaa ngi doon bàyyi xel euh, nag sama samay waaju dëddu nañ mhm. mais même sama kër sax mhm. dama rangé woon samay bagage mhm. séparé samay bagage defar sama bopp parce que xam naa ne li ma sumb ñi ko mës a sumb ñëpp bal dal na leen te tolloon nañ moment boo xam ne nii ñaawtee fi métti na métti goo xam ne ni heure booy génn dangay ngay xalaat duma duggaat sama kër. Mhm. boo demee ba duggaat sa kër yéeg si escalier nag dooga ne alhamdulilah rabbil alamina mais saa su ne aussi même buñ duggee suñu biir kër ñu ngi xalaat ne nit mën nañu faa fekk faagaagal ñu parce que réew mi moo tolloon foofu ak fi combat bi tolloon am na ñoo xam ne xeex bi tolloon na ci képp ku ñu gis muy wax rek wala mu am engagement rek. kooku mhm. buñ ko fi jëlee rek dina am lu mu defar ci ñoom seen bëgg-bëgg pour toogaat ci réew mi. Mhm. moo tax loolu dañ ko doon sóoraale à chaque fois. parce que mhm. dee woon si aussi noobul. Mhm. dee woon si aussi ah duñ ne mooy li ñu gënal mais sant yàlla lay doone parce que deewuñ ci lu bon deewuñ ci lu ñaaw ci xeexal suñu réew ci la ñu dee. parce que ñi dee gënuma leen. kon à chaque fois maa ngi ko doon sóoraale. yaa ngi sóoraale à tout moment loolu mën na am. mais ne ndax en tant que femme euh, c'est vrai que say waajur dundatuñu mais de temps en temps surtout bi xeex bi demee ba gën a tar léegi la sa doon woon dem si ñoom say waajur. waaw des fois nag sama xel dem ci ñoom parce que sama yaay jàmbaar la woon nag. Mhm. jàmbaar la woon bañkat la woon. Mhm. bañ na ko ba jawbe la nekkoon doon jaay restaurant. Mhm. moo nekkoon yaayu chauffeur yu bëri. chauffeur bu ci am problème. sama yaay moo lay lijjanti. moo lay jàppale moo lay taxaw. nit ku wéré di sax bu ko rombee. jël la sang la solo la yére jox la nga lekk jox la nga naan. kon su ma xoolee ci sama yaay rek. Mm-hmm. man waruma war a mën a tiit waruma mm-hmm. war a mën a ragal damay xool fi mu tegoon tànkam rek. Mm-hmm. ma teg ko fa ci tànk yooyu laa nekkoon. mais sa yaay bëgguloon comme ni nga ko bañ. non non. danaan jël xuloo jaamu sa di ko xuloo. <laughs> moom noonu la kon maanaam feedback doom bi da ko doon sa yaay. waaw sama yaay moom macha allah. même sama mag bu góor bi nekk géej waaye bas ñëpp xam nañ ko. ah ku dëgër góor bu am fulla ak fayda kenn du ko yab. Mhm. sànq dama gis yaa ngi wax sa yaay mais gis yaa ngi am benn émotion da ngeen amoon affinité bu extraordinaire on dirait. waaw ñun nag xam nga ñun ñun ñun moom suñu waajur moom la sama yaay moo ñu yar. Mhm. def ci ñun lu rëy nag. Ah, mu wéetoon lool ay jamono ci ay njabootam parce que àddina mooy mooy mhm. demee noonu. chaque jour suñ borom bu la bëggee dalay teg nattu ci say njaboot. teg la natt boo xam ne benn loxo ngay doon. doo gis ku la jàppale. mais sa jom sa fulla sa fayda moo lay jàppale ba nga say doom duñu naax saay mm-hmm. te même boo dëddoo bàyyi leen fi dinañ xel di jëfee li nga leen li nga def ci ñoom mm-hmm. moo tax alhamdulilah sant yàlla kan moo njëkk a làqu paa bi wala mère bi waaw sama papa nag moo njëkk a gaañ sama papa 2005 la gaañ mm-hmm. sama yaay 2019 bi la gaañoo moo tax mère bi après mère bi rek ngeen dese woon moo leen doon waaw moom leen sama yaay lañ xam sax nag waaw parce que man maa ngi woon sama yaay Casamance laa nekkoon sama papa nekkoon Bambey. Mhm. sama yaay moo ñu yar lépp lu nekk si ñun rek moo ko def ci ñun. Mhm. moo tax xam ñun jigéen ñi moom yaay yi lañuy gën <laughs> yaay ngeen donc Ousmane Sonko ndax direct moo leen boole wala juste euh, bëgg Sénégal moo leen boole. non Ousmane Sonko nag euh, xeexu Sénégal moo ñu boole. Mhm. parce que dama naan Ousmane Sonko dafa fekk sama combat. muy di xeex. àq ak yelleefu nit. di bañ nit di néewal ni doole. parce que boo ñemee nit néew la doone gisoo ku la wollu kon yow loolu dalay may force boo xam ne ëllëg boo mhm. gisee nit di néewal nit doole mhm. da nga ciy jàpp Ousmane mhm. Sonko aussi li ma doon xeex ma gis ko ci moom muy fulla fayda ak bëgg Sénégal bëgg réewam du tricheur parce que tricheur yoo mun a xam bu méttee day làqatu wala mu daw wala mu changer version mu gën ma motiver nag jëmmam ji tax na ma gën a am fit gën a am doole waaw Sonko. dafa la dafa la jëmmal dafa fa am doole kañ nga ko commencé topp réellement ban année exactement. Sonko est-ce que de 2017 boobu maa ngi Touba. 2017. waaw daanaka presque. bu parce que euh, dama ko doon laay wax laa laa yokk di cibre nag. Mhm. après benn instant ci libre solution boobu noonu mu yëkkati ay kàddu ci propos ci lii bi mhm. Mhm. ma di ko topp di ko bàyyi xel. ma fekkee nit ñi toog sëñ Abdou Mbacke mu Alaaji Baara mu sëñ Fallou maa ngi koy nuyu au passage. Mhm. Touba la nekk. Mhm. des fois ma ñëw ma ne ko sëñ Abdou waa ji jàmbaar la de waa ji dégg nga li muy wax waaj ji bu ñu ko joxee réew mi dina ko doxal de mu ne ma waaw mën na ko doxal de. Mhm. après ci laa koy topp di ko suivre di ko suivre di ko suivre di ko bàyyi xel. Euh, mosuma gis changement ci moom mosuma gis mu soppeeku benn benn version bi ma ko mos a xamee moom laa ko mos a xamee ak fulla gi surtout fulla parce que doomu aadama lépp looy def te amul fulla rek. doo ci am li nga bëgg. Mm-hmm. te lépp loo def te amoo ci ngëm-ngëm aussi doo am li nga bëgg. Mm-hmm. moo tax ci bi ma demee Ziguinchor nag ci liggéey borog bi. Mm-hmm. ci laa gën a feeñe nag ma nekkoon ci kanavo yi di liggéey mu di ma yuuxu naan ma jaar génnal caniveau yi bala ngaa gaañu. wala bala nga fee feebaree kan ko doon wax. moom Ousmane Sonko parce que bi mu gañee Ziguinchor. ci lañ dem ñu nag booy yëpp dem ci liggéey ba borog ba mooy borog bi mu fi woote woon. après ci lañ dem foofu nekk ci liggéey beeg. dindi kanavoo yeeg luqati mbalit yeeg salte yi. Mm-hmm. pour nga xam ne moom ci meeram moom fi muy jaar dina fa bàyyi histoire. Mm-hmm. parce que jigéen show ay at danaan mm-hmm. bam fa nekkee ak léegi suñ borom dogal na néew ma taawatul de mais dëkk yu kër yu bëy doon tax bu tawee nit ñi di génn léegi ñu ngi resté ba tey. kon alhamdulilah moo ah, tax. mais bizarrement ñu bëri ñu naan Ousmane Sonko deful dara Ziguinchor deful dara. waaw loolu nag euh, xam nga nit ñi moom. allah kulli xaal faaw ñu wax. Mhm. waaye ñun ñi fa dëkkul dafa dem. Mhm. xam nañ lan la fa soppi. te ñi fa dëkk aussi di doomi Casamance ñoom xam nañ lan la soppi ci dëkk ba. Mhm. moo ñeneen ñi nga xam ne demuñu fa dañoo bëgg commentaire wala débat moom dañ leen di bàyyi ñu débat. moom mënul ñàkk. Eh, dañ leen bàyyi ñu debaa bu ñu gën a avance tuuti eh, Bassirou Diomaye fay falu point yi muy teg pion yi muy teg depuis boobu ba léegi ndax yaa ngi si gis sa bopp. waaw maa ngi gis sama bopp. vraiment parce dañ leen a faloon pour ñu suqali parce que dañ fay fekk benn Sénégal bu faible Sénégal bu waaf Sénégal boo xam ne démocratie bi dafa dem ba nërmeelu dëkk bi saal bu yu bëri na liggéey yu ñu sàcc bi luubal bi nga fal ay DG ñuy tëdd seen clim yi duñu xëy duñu gontu bëgg di fayeeku fay fal ay ministre yoo xam ne ñoom seen kilim rek la ñu xam mm-hmm. te gis nga ministre yi ñu fal ñoom ñëpp ñu ci terrain bi même DG yi aussi ñu ngi ci terrain bi. te euh, fii at. fii at laa la wax de wala fii si six mois laa la may. da nga gën a gis changement boo xam ne ku nekk da nga naan lu tax ñu yéex a fal Diomaye ak Ousmane Sonko. parce que ay jàmbaar la ñu fal nag. te xam nañ fi ñuy teg seen tànk. Mm. mais teewul coow lu bëri na fayal leen impôt du ñu fay fay leen quarante milliards keroog ñu gis Bougane attaqué leen carrément ni sàcc moo gën fenn coow lu bëri. yow en tant que patriote noo gisee tontu Bougane yi non coow moom mënul ñàkk. Mhm. surtout surtout ñun suñu pouvoir bi. Mhm. mënul ñàkk coow. Mhm. parce que ci euh, ku xam Pastef xam ko ci coow coow la soso <laughs> ak diaboliser. jàppal bàyyil ko def nii joomaay def nii loolu mënul ñàkk. mais à chaque fois lu ci waay di wax rek. tegal argument bu wóor bu leer. ci taable bi. critique mënul ñàkk détail mënul ñàkk. parce que gis nga réew mi dafa tolloon foo xam ne nii baadoolo yi. Mhm. ñoom ñooy fay lempo. Mhm. ñoom milliardaires yi ñu fay lem di dund suñu kaw. Mhm. te loolu dafa war a mën a jeex. te ñaar ñii ku leen xam xam leen ci lempo lañ dañ cee xam lu bari nag. gis nga li am dafee li ñu war a fay ci lemp